pas bon nga informer sëriñ si mënu ko mukk moo ko defee yàqu noo xam ni kenn du xam na mu toll mu ni ma kon nooy def ma ni ko damay jël position bu ma jëlee position ba mu tàng ba tàng daañu dem wuti alliance su sëriñ si mu jeex tàkk mu ni ma ay risque ngi ci ma ne ko moo tax ma di ko jël mu ko lu amul risque baaxul waaw yàlla xam na ko loolu dajeeg intellectuel yëpp dem ko tunu def fa seen réunion ni dañuy laaj indépendance totale bi ñuy laata ñëw fekk ma def sama déclaration rejeté lañ fa wax yëpp wax ni duñu def mukk indépendance du nekk ci loxo neegar yi kese kese duñu ko def parce que xaru sengoor Senghor ñëw ba mu ñëwee gis déclaration bi jóge ko sunu moom Senghor mu bind ma lettre ni ma Serigne Babacar Sy moo la inspiré position bi nga jël parce que la ñu arrêté ci Cotonou buñ ko doxalee nun ñëpp dinañu al ko lool la wax moom Senghor lettre bu rafet la ma ci bind Mamadou Dia ñëw def déclaration wax ni d'accordul ci sama démarche kon nag mouvement bi ma def nañu ko daldi di dissoudre nga defe ni mer naa ci mukk dama daal xam fu yëf yi mujj ndax ñaari philosophie yu bokkul la te ñoo seq réew mi kon nag ci éclatement rek lay mujj la xam na ko moo tax du Dia mujj na ko wax ci kanamu Hadj Ibrahima Niass ni ma loonu critiquer rek d'accord nag ci da fekk dama ko mënula wax rek te wax na dëgg ba ñu génnee Hadj Ibrahima Niass ni ma kii ku honnête la su booletul woon du waxe nii yàlla xam na ko lettre ba ma ca Senghor bind lettre bu ne rafeti musuma ko gis lettre ba sax dafa am ku ma ko àbb ku ñuy wax Foccart te nekkoon ak général de Gaulle ca Paris ma jël lettre ba jox ko Élisabeth Diouf pour mu yóbbul ko ko booba Élisabeth an ca ambassade ba booba Abdou Diouf dencagu ko booba mi ngi am xale bu tuuti bu jigéen bu ko yàlla jox ma ne ko takk naa sagar ci tànkam ni mag ñi daan wax ma ko li ma metti mooy bu màggee dafay fekk ma màggat yàlla xam na ko pour wax la ni nun jógewuñu ci pax ki nu yar lu ne la xam sëñ Babacar nuy barkeelu ci moom rek boobu façon lool la moo tax ñu def PSS ne ah comme dissoudre nañu mouvement bi nañu def parti politique pour wone li nu sañ ñun itam moo tax waaye bu fekkoon ni wut pouvoir rek la bu ñu sàccee élection ya kon nu taal réew mi waaye ba ñu sàccee élection ya nun ñëpp doon sant yàlla moo wax na ko yàlla xam na ko ba bërki démb maa ngi ci waxtaan ak Serigne Moustapha mii ma ne ko seetal booba bu fekkoon ne noo gañe téye réew mi ba léegi ni ñuy saaga nit yi pouvoir yi lan ñuy saaga ma ne ko ndax dana fekk duñu mën a gérer réew mi duñu ko man koo xam ne doxal daayira dafa la te mën nga gérer réew dama leen koy laaj ni ko sëñ Babacar si am na juróom-ñaari at di réorganiser daayiratul kiram mu tëj te mënoo ko barke mënoo ni ko Sénégal yi noonu lañu ñu mel ils sont naturellement indisciplinés loolu la yàlla dogal te Blaise Diagne ba léegi jàmm amul moo wax la ko te Blaise Diagne ba léegi te ku ci ne booy tàmbali yiw ngay tàmbalee te ku ci ne booy tàmbali yiw ngay tàmbalee waaye lépp lees waxoon sëñ Babacar si mu ni ko yaa ngi mel ni da nga xaw jeex mu ni ko sëriñ na may def ba duma jeex parce que dama am ñeenti problème problème bu jëkk bi mooy ñi ma ñi ma defe nañ ni noose pouvoir bi rekk moo ci des ñi ma bañ itam defe ni sosal ma rek moo may daaneel tubaab yi nekk ci diggante bi di exploité ñii ak ñii ba noppi te jaban tubaab laa am dama am complexe duma la ko nëbb yow ni ko ñeenti problème yi ñoo ma jeexloo nii seetal loolu ah waaye xamuloo ni mag ñanu yar mag ñanu yar te depuis Blaise ak léegi looloo nekk ci Sénégal ba mu fi jógee ngalandu la fi bàyyi ngalandu itam li mu bëggoon a wone mooy wone ni sénégalais la te bu ko wonee ba mu jeex rek jikko wolof ñëw te bu jikko wolof ñëwee du fi def dara maa ko wax mu jóge fi lamin Gueye ñëw ak si di doomu nit ku yu nekk un ku nekk ak sa bakkan ni ko kay dundaleel lu sunu bakkan mu toog fi li fi nekkoon na ko si néew nit ñi séddoo ko mu jël westam teg dem yoonam bi muy dellu si nag mu indaale sengoor sengoor ñëw ñu naan kii kaw asamaan la jóge li mu jàng tubaab sax jàng ko ñu di ko yóbbu ci penc yeeg fu ne mu naan camarade nit ñiy daanu àll naan déggal nee na camarade yëfi caaxaan yooyu yu kenn xamul waaw yu kenn xamul te du noonu du noonu du noonu Senghor boo ko waxee dëgg mu nangu ko dana xam na ko loolu moom qualité am la maa ko xam ci moom maa ko xam ci moom dama dem di voyager pour benn projet bu ma am ndeke dama dëdd rek am ñu dem yàq bopp bi dëkk bi ma dem fi ñu toog di def réunion pour projet bi kenn ñëw ni dafa jaaxle parce que Sénégal ëllëg Senghor dana visiter chantier HLM yi te kenn mësul gis fu président de la république di visiter chantier HLM même ministre sax waru fa dem directeur construction rek a fa war a dem li ma kon nag am na déclaration bu mu fa war a dem te ragal naa ni sa présence fii moo tax mu di ko def te loolu te ëllëg sa rek Senghor def dem def déclaration wane ni Euh, fi régime socialiste moo fi ne du ñu nangu monopole mu ni ma justement looloo taxoon ma ni la nanga ko déglu hmm. mu ni ma sa projet bi la ma ni ko baax na mu ni ma kon nag on laisse tomber ma ni ko ah non ce n'est pas parce que Senghor wax na loolu rek ñu war a bàyyi ma ni ko parce que yàlla fi nekk li mu bind ci jëw nit kenn mënu ci dara mu defe ni damay kaf ma ko demal giseeg sengoor waxtaan ak moom mu dem giseeg sengoor waxtaan ak moom sengoor ni ko ak projet bu mu man toll fii ci senegal trente pour cent yi rek la ñuy jox Sénégal yi parce que gestion mënuñu ko Sénégal yi mënuñu gestion am na xale bu baax boo xam ni moo doon ministre hydraulique te nekk sama mbokk te nekk taalibe maam Serigne Touba mu ñëw ni ma waxal sengoor bu mu waxati nit ñi lool parce que dafay bloqué avenir u xale yi bu defee ci bopp tubaab yi ne xale yi gestion mënuñu ko àdduna dafay tukki ma dem seeti Senghor mu ne ma oui man maa ko wax parce que fi gestionnaire amul fii bu ko defee trente pour cent yi soo bëggee ñu seddee la ko ma ne ko déedéet trente pour cent soxla mu ma ko cent pour cent la soxla ma ne ko danga may wax nag mën nga wala mënuloo mu ni ma mënuma ma ne ko bon li ma xam te xam ko mooy bu ma fi jógee nga jox ko ko jur loolu la yow pour yow sa famille rek a compté man compté wu ma sama famille compté wu ma ni ko wante tey la ñuy teqalu ko abadan gis nga àllaaxira yàlla buñ fa gisee ma ak yow billaahi kitaab mag ko wax ma jóg di dem mu téye ma ni ma déedéet toogal ñu waxtaan man sabaan taxul ma wax ko dama foogul ni rek fii di nga fi am un gestionnaire boo mën a confier loolu te dem doxi sa soxla ma ne ko bu dee loolu rek kay def ma confiance ma ne ma kon nag def naa la confiance ma ne ko téléphone ñi nga waxoon ni doo ko nangu mu téléphoné leen ni leen nangu naa ko mu jeex parce que loolu la xol bu sell mu fa yóbbu woon moo tax yàlla nangu ko waaw ba tax na yenn yi suspicion yeeg yu kenn xamul ci ay mukallaf ñoo xam ni daaniki rek ñu ngi xalaat seen bari barzax waaye xalaatatuñu leneen ne defe ni ay pouvoir rek yu kenn xamul yu kenn xamul yu kenn xamul man noonu lay def ak ñoom laaj ko maître Abdoulaye Wade bi am na bés yu yónni ko ci man président ivoirien bi moo ko ci man mu ñëw ni ma jógal dem Côte d'Ivoire gaaw balaa tas Ousmane Ngom jiitu na la laaj ko Ousmane Ngom laaj ko Ousmane ma ni tekk ba mujj ma ni ko demuma xamu ni ma loolu mënul nekk ñu daldi di woo Ousmane Ousmane woo ci téléphone bi mu wuyu ni ma président baa ngi lay xaar wutal naa wutal na la ñaari daluwaay wutal na la daluwaay ca hôtel ba Ivoire wutal na la benn ci Cocody pour nga recevoir fa daayira yi ndax éclatement dafay bëgg am ci nord ak sud ma ni ko ñëwuma rek yam foofu ñu jaaxle moom mu jaaxle ba dikkee jaaxle ba ni demuma ñu bàyyi noonu ñu teg ci ñeenti fan Ablaye Wade ñëw ni ma waa yow ku la xamal affaire bi ni ma ndekkee boo demoon adduna tukki billahi wal kitaab ni ma ku la ko xamal ma ne ko ah ku nekk sa kilifa waaw waaye yenn yi yenn yi soo amee yenn kilifa yi ñoo lay dimbale lay dimbale ci xalaat yooyu li ma ciy daj manuma la ko nettali manuma la ko nettali ba tax na affaire pouvoir ak pire teeg yu kenn xamul rek du noonu du noonu nag dëgg la nag mu ngi tolloo bu ñu demee ba kenn ku ne ni yàq ma gënal fexeel yow itam loo mën a yàq nga yàq ko waaw et puis kooku noonu rek la boo demee ba ku nekk ni yàq ma gënal yow itam loo mën a yàq rek yàq na waaw kooku loolu rek la parce que moom rek a dese bu desee ku ne ni damay yàq yow yàqal loo man rek waaw te jàpp ci yàlla la man toujours noonu lay def toujours noonu lay def bu defee nu nekk fi rek di taalibe yonent bi nekk fi rek di taalibe Cheikh nekk fi rek di taalibe Maodo nekk fi rek di taalibe Sëñ Babacar Si et leneen amul ndax itam ñaari silk rek fi nekk silkul ambiya wa silkul awliya silkul ambiya yonent bi mooy xaatim bi amul werante te kenn négocié woo koog moom ko ci dañ ko orienté obligé ko mu nekk xaatimul ambiya waaw waaye silkul awliya cheikh a nekk xaatim bi والقطب المكتوم والبرزخ المختوم آه. مملك كن في كوكوتش آه. مي القطب المكتوم والبرزخ المختوم تموي آه. الغوص الرباني والعارف الصمداني كوكو كن كن في كوكوتش kooku kenn fekk ko ci ndax itam <laughs> dafa am benn xarit bu baax la tubaab la te dafa gëm dafa gëm diineem nee ma cheikh maa ngi ci sama juróom-ñeent fukki mësuma tox mësuma naan mësuma doxaan sama jabar benn at laa ko magi te li ma mën mënatu ko ma di la ñaan nga ñaanal ma bés bi muy dee walla bés bi may dee nu bokk ko deeyandoo mu ni ma ma dee bàyyi ko gannaaw fasuma ko yéene mu dee bàyyi ma gannaaw fasuma ko yéene kon nag ñaanal ma nu deeyandoo ci benn fan te ki ma doon wax lii gisuma ku ko raw ci tugal te xaritu benn bakkanu sengoor la ma ni ko dafa am foo juume mu ni ma fan la ma ni ko tàgguwuloo sa jabar mu ni ma wax nga dëgg erreur rëy laa def mu nangu ko benen yoon ba ni ma comme léegi dootuñu xuloo il ma wax la ni Muhammad c'est l'un des hommes les plus intelligents au monde waaye nag mënul nekk prophète parce que prophète yaa ngi yem ci Isa ma ko pour chrétien mu ne bàtt ba mu yàgg ni ma wax nga dëgg juumati naa gan gi mu àndal ni ma mais man gëwuma yàlla te moom mi gi gëm yàlla te nu ngi xaritu ma ne ko du ci dara ne ko kooku nag du ci dara parce gëm yàlla yàllaa koy def ci xolu nit ma ne ko def ko deful ci sa xol moo tax gëmuloo ko mu ne ma ah non du loolu parce que je suis philosophe te man ñi ma bokk naan waay yëpp xam nañ ni tout est dû au hasard ko waxee ni ma ñoom laaj leen Mais le hasard, c'est une épithète parmi tant d'autres. hasard bah, hein. Hein? c'est une épithète de la volonté de Dieu la preuve si vous appelez le hasard ce n'est pas le hasard qui répond c'est la volonté de Dieu qui répond ñu continuer noonu soow soow soow mu ni ma est ce que wax na ci dara ma ne ko waaw moom mu ni ma mën nga cité verset ba ma ne ko waaw mu ni ma ban la ma ne ko atadoona baax la أتدعون ahsana وتذرون أحسن الخالقين ko نقول la ma ni ko yàlla xam na ni am na ñoo xam ne asaare yu seen yàlla waaye moo mu ngi leen di laaj moom yàlla ñi def asaar muy seen yàlla mu ngi leen di laaj naka la leen loolu dal parce que ñoom ñoo ëpp valeur asaar naka la nit di jaamoo lu mu ëpp valeur innakum wa ma taabudun min dunillah xam nga loolu tax nit ñi xam ne wuñu loolu gis nga ki fittirlu di wane ne xam na ma moom guy gi lay jaamu yëgul ni guy gaa ngi koy rëbb yëgu ko ki fittirlu ni mi ngi jaamu mbëtt bi mbëtt maa ngi koy rëbb ndax yàlla inspiré na mbëtt bi ak guy gi yépp ni seen nattu mooy ñu jaamu leen mu ne ko mais ci way ci jaamu xamul loolu pour wax la ni euh, yonent bi kenn daf ko mënul fay ndax léppam dafa leer te itam dara mënu ko féete kaw moom itam mu nangul yàlla ni alquran mësul gis lu mel noonu yonent bi dafay daanu àll ndax alquran seetal loolu te dafa dafa nàmp wax wax daf ko nàmp yonent bi dafa nàmp wax ci famille bu nga xam ni kenn mësul yem ak ñoom ci wax yàlla dollil ko ci la mu ko dollil ba bu àddoo ñëpp a koy xool moom yonent bi waaye moom it bu alquran wàccee dafay jaxle kuy waxe nii kan ñu xam ni kon nag am na fu mu jóge waaw loolu kenn mënul fexe indi argument bu tegu ci kawam loolu mënul nekk parce que maa ngi koy waxtaan ak sama benn sët médecin la fekk affaire anticorps yeeg pour ni buur bii defee rek fekk yaramu nit mu def ci ay anticorps mais en même temps mu permettre yeneen yi microbe ñu jaar feneen dugg ci biir muy seetaan xare boobu seetal loolu mu ni ma paradoxal ma ni ko justement il aime les paradoxes parce qu'il est Dieu le créateur mais il est Dieu le roi aussi loolu moo tax moom ku ko nangulul paradoxe yooyu du jubóom yow du jubóom yow ba tax na moom ku yomba jubóol la waaw te itam ku yomba def xarit la mais ci kaw nga dal ci kaw nga dal wa salli alayhi inna salawatika sakanun lahu ci kaw nga dal euh, cheikh biram dafa dafa dafa yéeme ndax dafa doon gan fa mu nekkoon te itam agam àggul fenn waaye révolution yi mu def ci àdduna bi kenn mësu ko def ci àdduna ndax bi ñu nee circul awliya automatiquement dañu def délégation pour seeti ko pour proposer ko mu nekk xaatim mu bañ yonent bi moom kenn proposé wu ko dañ ko ko forcé pour mu nekk xaatimul ambiya mais cheikh dañ ko ko proposé ba xam dina nangu nekk xaatimul awliya wala du ko nangu mu bañ mës nga gis ko am fitu ñu di la proposer xatmiya nga di ko bañ mais parce que sama àgg na ci ak xàmmeem mu bañ ko mu bañ ko ñu ne ko lu tax nga bañ ko mu ni risque yi li ci nekk ci risque moo tax du ma ko nangu ñu dem ceeg moom dem ceeg moom ba nga xam ni cofeel rekk mën na lu nekk musu koy accepté bi mu ko accepté mu joxe ñaari charte chart bu jëkk bi

yàlla di ko teg waliyu mag mu bañ ma ko teg sanction la bu nga xam ni yàlla waliyu mag la koy teg ak système bu bew système bu nga xam ni léppam ci matérialisme la ko teg ñii ñaar la ko dencal kooku ñoom mënu mënuñu ci joxe garantie ba yonent bi benn yoon rekk li ci gis moo di mu nangu moom itam parce que mu jëla nangu yonent bi waaye nag cheikh xam na ndax nangu yonent bi ci catu tuñ dafay wane ni am na charte moo mu laaj ko charte bi mu ñu ko charte bi mooy nga compter ak ñi ñuy tudde alxassa maanaam booy wut taalibe taalibe ba na tudd Alaaji Omar booy wut taalibe taalibe ba na tudd Hajj Malick booy wut booy wut taalibe taalibe ba na tudd Cheikh Sukayri booy Tamasini booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ali booy wut taalibe taalibe ba na tudd Ibrahima Rayaaxe booy wut taalibe taalibe ba na tudd Majaxate Kala booy wut taalibe taalibe ba na tudd Alxaaji Ibrahima Ñas wala papaam booy wut taalibe ko xam ni taalibe yi nga am kenn ku ci ne mën na not continent seetal loolu ñu ni ko lool rek moo la mën a sole maxk du tegu ci sa kaw waaye amul benn wëliyu bu nga xam ni mën na rëcc maxk ma day taal yal na ci yàlla musal ni muy tegoo ci système gaañ ko noonu lay tegoo ci wëliyu gaañ ko parce que sanction yi ñuy teg wëliyu ñett rekk la maxk ak tard ak xislaan te ñu koy prononcé ca xëy ba masque ak tard ak xiblaan masque wali yu sëkk lañ koy teg

boo demee ci registre bi nit ñiy demee safara doo ca gis turam boo demee ci régisteur bi nit ñiy demee àjjana doo ca gis turam boo demee ci registre bi ci diggante bi dootoo ci gis turam ndax far nañ ko abadan te mën na am tegu ko boppam waaye borom gémmiñ guree ko ko teg parce que yàlla paaka la kenn du ko jëkk ci mberam boo mayee sa sëriñ ci sa làmmiñ lu mu ko mayul du la sacrifier yow sëriñ ba lay sacrifier noonu lay def moo tudd maxq dañ ko ragal ñoom ba mu ëpp tarde nag wali yu waxee ak borom jamono lañ koy teg wali yu bu xeexee borom jamono kenn du ko informé te buñ ko informé dootul fekke seen prestation yi te ko fekke fekkeetul moo koy taxawaaloo yam loolu moo ci nekk xëglaan nag moom moo ci gën a doy waar moom presque du du sanction mesure administrative rek la waa laaj boo koy def mooy ni yàllay def rek fekk ko xel ma matul mu may ko wilaaye seetal loolu li bukki di wax ni xamul séddale ne yàlla xamul séddale seetal fekk koo xam ni xel ma demewul noonu mu may ko wilaaye xam nga kooku bu ñu jëlul mesure yu ñu ko sàmme ba tere ko mu wax ci mbooloo tere ko mu jëf ci mbooloo adduna dafay tukki seetal loolu moom la ñu tudde xiblaan ñetti sanction yi ñoo fa am max ak tard ak xiblaan waaw yal nañ ci yàlla musal max ko moom ku ñu ko teg c'est fini c'est fini moo tax cheikh doon ko daw waaye nag bu ko bëggee rëcc nag dafay compter ci alxassa ndax mag ñi dañu mën a jàpp seen bopp waaw moo tax boo jëkkee ci mag ñi rek mën nga rëcc waaye boo jëkkee ci mbooloo kese kese kese rek ñu gaañ la parce que dañ lay jox cër bu la yàlla joxul te yàlla paakale kenn du ko jëkk ci mbaram mukk te lum la waxul boo ko ko sosalee fa la lay bàyyi sanctionné sa kilifa seetal loolu seetal loolu lu mat a bàyyi xel pard nag mooy wali yu waxee ak borom jamono kooku noonu rek la moom it dafay dafay jël mesure demandé pour ñu bañ koo informer te lu jóge xayb te ñoom seen bànneex yépp mooy seen contact ak xayb seetal loolu seetal loolu kon tàggu shahada ak xayb dafa jar lu nekk kon nag bul nangu ku la ko tere mukk nangu ku ko tere mukk mukk mag ñi dañ ci sonn yonent bi sonn ci yàlla sonn ci yàlla bañ la ko ba wax ni siddit gi yëngu ci seen xon maa ku gën a jege ci yéen kon nag nangu leen xayb ah kon nangu leen xëy wante ñun ñu ngi defe nit nii rek kese kese kese déedéet seetal lu tuuti loo xam ni bu ma la ko waxee léegi nga reetaan te importance mu ëpp na dama am tant buy jàngale alquran ca ndar waaw man sama tante yëpp dañ daan jàngale alxuraan ndax suñu kër ca ndar sama tante kanto moo fa indi tariq xadiriya sama maam asukan mi ñu jur mi ñu tudde soxna asukan moo fi indi tariqa chadiliya suñu kër looloo fa ne moo tax sama tante kanto daf daan tux parce que tariq xam terewu ko ko te comme gorole ci sëñ Babacar bu dee ñëw Tiwaawan sëñ Babacar dafay jënd lu pool pour gardel ko ko te dafay wax ni nañ ko jëndal pon mu xees waaw ne ndax nee ñu moo dàq seetal te cheikh moom suma turandoo nanguwul pon te mi ngi ko jële ci wadi li mi yax moom ci la ko jële ndax ba ñu daggee xob ca garab ga indi ko ci kaw suuf di seet bu mu bokkal ndey baay bi ñu ñëwee ci pon lañu ñu gis ni moo eh, xob bu ñu jële ci yax moom benn la Cheikh tere ko waaye bu yëgoon du ko tere ndax lañu ko ca yekk lañu ko ca yekk tere lëf jaru ko yàlla xam na ko yàlla xam na ko su ko defee xëwilaan mooy ci gën a doy waar sa moo ci gën a reelu